ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا نذير له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ رساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله بالغمه usalli wa usallimu ala sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa sahaabatihi wa ala taabiciina wa taabicihim bi ixsaani ila yawmi diin amma baad mbokk jullit ñi gannaaw bu ñu sant yàlla mi nga xam ne moo farataal ci ay jaamam ñu aj ñu jàngoon ci ajuma bi paase ne aj mooy lan mooy nga jublu barab bu màgg ngir appliquer ay ndigal yoo xam ne ay wax la ak jëf yuñ la digal pour lan pour sa islam mën a mat ñu wax ne aj boobu mooy nga jublu néegi yàlla bi ca Kaaba ga ak jëbal Arafa noonu lañ ko xamle woon ci sharia ñu jàngoon ne aj bi du ñëpp la war ku du jullit soo ajee sa aj aji farata wàccagu la soo tuubee da ngay ajaat parce que aj bale bokkut ñu ne xale su ajee ba léegi farata bi wàccagu ko ku kel xel majnun bu ajee aj bi wàccegu ko jaam bu ajee aj bi wàccegu ko parce que moomul boppam parce que moomul boppam ñu jàngoon tamit ba léegi ne aj boobu am na ay rukkunu ay pays yoo xam ne soo ko bàyyee rek danga koy defaraat dafay yàqu yi nga xam ne moo ko téye arkaanul xaj jàngoon nañ ko muy al muy nga wër kaaba gi tawaaful ifaada muy nga dox bayna safa wal marwa muy yowmu arafa aj boobu ci lañ nekk muy weer yoo xam ne weeru nangu ñaan la muy weer woo xam ne yàlla moo wax ci heure yi nga ko war a def ah mu ne la alxajju ashurun maalumaat du weer wu la neex ah wala weer woo xam ne dangay toog ba mu neex la nga ne bismillah déedéet alxajju ashurun maalumaat aj boobu ci la benn saxaaba laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne yàlla farataal na ci yéen aj aj leen saxaaba bi ne yonent bi sallallahu alayhi ndax at bu nekk la di baamu question bi ba muy ñetti yoon yonent bi sallallahu alayhi ne ko su ma waxoon waaw rek ñetti yoon bi war leen te leen ko su ma waxoon waaw mu war jullit bu nekk mu aj ñetti yoon te mënu leen ko ñu déggee ci ne aj aj bi benn yoon la rek ci sa dund mooy farata bi boroom xam-xam yi nag ne aj boobu dafa war a gaaw wala dafa war a yéex ñii ne dafa war a gaaw parce que yàlla moo la digal walillahi ala naasi xejjul bayti liman istataa ilay sabila kon soo ko mënee rek def ko soo ko mënee rek def ko moo tax loo mën tey defal tey soo gisee Afrique walla ci Sénégal wala suñ mag ñi dañuy tënku toujours ci wax imaam Malik parce que dafa am ay argument yu wér ndax li la yàlla sant lim la diggal yoon wi baax na am nga xaalis bi am nga kattan bi def ko parce que mën ngaa xaar dootoo ko man moo tax ci Maalik def na la mu gaaw moo gën ñeneen ñi ne la na yéex parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox nañ ko aj mu xaar ñaari def ko ba léegi am nañ ci lay waaye bële moom lañ gën a téye moo tax soo ko mënee léegi defal léegi aj dugg na am nga xaalis place am na ci essence bi am nga loo bàyyi sa kër am nga loo yóbbaale am nga wér gi yaram aj war na la ah aj war na la période aj dugg na sa compte xaalis a ngi jullit nga sa compte xaalis a am nga wér yaram am nga loo bàyyi sa njaboot possibilité yëpp mën na mën na ci yow Ah, yow booba bokkoo ci ñi am ngant ah boobaa nag ragalal yàlla boobaa nag matalal say farata boobaa nag fexeel ah nga d'accord ak sa borom bul wuteeg sa borom defal lim la wax walilahi ala nnaasi xajjul bayti ah man istataa gannaaw istataa bi am na rek gaawal nga def ko ci num gën a gaawee ah laaj na yonent bi sallallahu alayhi wa ci guerre ci jihad mu ne nañ bàyyi jihaad boobu jihaad bu mag bi mooy lan mooy aj gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam remplacé na place yi mooy muy aj ba léegi muy jàngat mu lay jàngal yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam remplacé na place yi muy jihaad muy aj hadis wax ne aj bi yàlla digal leen kenn ci yéen du ko def yàlla nangu ko lu may retourné nga fekk yàlla effacé na sa boole mi bàkkaar yi ba pare yaa ngi mel ni koo xam ne yaa ngi juddu ees ci sa yaay parce que amoo benn bàkkaar kon aj baa ngi noonu mu nekk farata boo xam ne yàlla moo ñu ko digal ci suñ ko ma manee si nga laa yukallifullaahu nafsan illaa wusahaa yàlla lépp lu mu digal jaam bi rek ah day wax ne soo ko manee wattaqullah mastataatum a ñu nekk nag ci période boo xam ne période si nangu ñaan la jamono aji jamono nangu ñaan la mu bokk ci li muy jëriñ moom aj mooy na loo fa ñaan yàlla nangu ko mu bokk ci aj li muy jëriñ def ci yow modeste def ci yow ah relation boo xam ne yàlla moo la koy jox ci biir ak gi nga gis ñoo xam ne xamoo li ñuy wax ñoom xamuñ li ngay wax waaye yéen a ngi ànd wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu dafay feeñ foofu islaam di la jàngal di la yar toujours nala ni ma ko bëggee man saa yow ni ko bëggee bàyyi sa xel wax yonent bi salaay salaam xuzu anni manasikakum bul changé bu ci yokk loo xam ne alquran indiwu ko parce que maa faratna fil kitaab min shay xanaa nga bañ koo gis wala bëggoo koo gis waaye lépp kon islam mi ngi lay orienté ne bul kéré lu bees bul indi wax bu bees parce que lépp tëralal naa la ko waaye fi ne nit ñi dañuy créer seen fi bopp boo këree seen fi bopp rek am problème waxtoo wàcce loi bi la yàlla tëral rek am problème gis nga ñépp ñu ngi gis ci àdduna bi ñu nekk ci ay jafe-jafe yahud yi ñi ngi dóoranteeg Palestine muy xeex bu yàgg te yàlla atte na ci nu ci yàlla attee yàlla ci boppam moo wax ne inna hada alqurana yaqussu ala bani israila akthar alladi hum fi yaxtalifuun problème yi wute yëpp man leeral naa ko expliqué naa ko ci biir alquran al karim léegi nag yow nga war a dellu ci alquran xool lan la yàlla wax ci ñii lan la yàlla wax ci place bi lan la yàlla wax ci lii xew léegi waaye est-ce que def nga ko gis nga yàlla wax na ci alquran ne yonent bii ngeen yaakaar ne moom la gaa yi di xeex gaa yi xam nañ ko de maktuban indahum fi tawraati wal injil ñu ngi ko bind ci seen téere bi te bu fekkee danga wax ne julit nga nga ne changé nañ yëpp ba léegi alquran ngay wax a yow ne la yuharrifuuna al kalima alquran daqiq fi taabir bu la benn baat benn baat bu ne la ñaar la moo tax yàlla ne na ñu ko bind ci seen téere bi xam nañ ko bu baax xam nañ li xam nañ lim indi xam nañ jàmm bi indi ah xam nañ leen mooy ñëw gannaawam parce que ñoom maîtriser nañ alquran mais est-ce que yow jullit bi maîtriser nga téere boobu ñu amee donte du dëgg xool ko moo tax jullit ñi dañoo war a yeewu fu ne di yër soo ñëwoon léegi sa doom tey bible wala tey tawraat nga ne ko bàyyil bàyyil da ngay weddi déedéet bàyyi ko mu liir parce que nit ki mënoo wax ak moom tax xamoo ko ah nit ki mënoo waxam moom tax xamoo ko moo tax jot na jullit ñi yeewu. dégg lii la nga xam ne moom leen alquran wax ne leen fexe leen ngeen xam lépp parce que xam-xam boo xam dana la jëriñ ki ngay waxal soo ko xamee xam li muy jàng xam li muy liir xam lan moo nekk ci xel mi ah boobaa wax ak moom du jafe waaye boo ne noonu la noonu la rek noonu la rek déedéet xoolal li alquran wax ci moom laysu sawa alquran na ko wax nee na am na ci ñoom ñoo xam ne ñu maanu lañ am na ci ñoo xam ne maanuwuñ wa minhum man in taamanu laa yuwaddi ilayka illa ma dumta alayhi qaayiman am na ñoo xam ne boo leen joxee seen sa alal ñàkk nga am na ñoo xam ne wax nañ ci yàlla wax yu rëy ba ne Uzayr ibnullahi am na ñu ci ñoom ñu ne yadullahi maxlula yooyu yëpp ay waxu ñaaw la yoo xam ne contraire bi am na ñeneen ñoo xam ne waxuñ loolu ah islam mooy xutba moy lan mu wax la ci li nga nekk lan la solution bi lan moo koy réglé du kenn du lenn lu may alquran rek ndax du ngeen science ndax du ngeen xalaat ndax du ngeen xool yonent bi salaay salaam naka la daan jëflantoo ak i noonam ah di leen jox di leen seeti waaye soo waxee sax mën nañu yaakaar déedéet ah da ngay appliquer li alquran wax da ngay da ngay xool naka ngay muccee ci sa noon moo tax ñu ne la ragalal yàlla ragalal ki ragal yàlla ragalal ki ragalul yàlla lu tax parce que capable na lu ne. am na koo xam ne doo ko sonk ñun bi salaay salaam def na loolu jàngal nañu waaye doo wax xeex xeex da ngay dem ak sa xel xeexi jaase xeexi xoloo dafa paase léegi lañ leen lan lañ leen di xeex yéen jullit ñi xel ci lañ leen di xeex fexe ba ngeen di dóorante seen biir fe fexe ba du ngeen xam li ngeen am lan la alwaladu yalaabu bi kurrati min adahab wala yaarifu qimataha alquran bi nga téye la ñuy fexe ba doo xam li ci nekk ba avalero la ngay dóorante seen biir déedéet yow teeyal nga xool li nga am lan la xoolal sa valeur lan la xoolal alquran naka la la wax nga jëflanteeg noonu yi moo tax yonent bi salaay salaam jàngale na lu bëree bëri xam nga yawut bi doon bëgg a rey yonent bi salaay salaam ci xaybar kooku bokkut ak bi nga xam ne bi yonent bi di génn àdduna semisam mi ngi ko bàyyee benn yawut yawut bi lebal ko xaalis kooku mënoo wax ne amutoon. relation bu rafet ak yonent bi salaay salaam parce que seq nañ bor kon du ñëpp am na ñoo xam ñu nite leen ci ñoom ba léegi yàlla waxu la nga xeex ñëpp daf na la laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddiini wa lam yuxrijukum min diyaarihim an tabarrum wa tuqsitu ilayhim ñi nga xam ne xeexuñoo ak yow génnewuñ la seen kër saagawuñ la yàlla ne terewuma la nga jëflante ak ñoom teraanga wala taziru waziratun wizra ukhra yahud bi nekk Israël ne Palestine di dóor bokkut ak yahud bi toog fii jotewut ak yow dara nga am ak moom boutique wala yahud bi nekk feneen nga am moom relation boo xam ne relation état la relation réew la nga bëgg a jël yëpp globaliser ko def ko benn waay bëgg a jël benn personnalité ne ko xeexal waxal fekk moom loolu du rôlam relation mooy nu defaree relation ak adduna bi ak nit ñi nu amee civilisation pour mën a toog ak ñëpp. pour yeggale sa réew fépp pour indi jàmm ak ñëpp ah parce que lu dul jàmm jàmm moo ko gën am na noonu boo xam ne doo ko songee noonu moo tax booy wax ci dara da nga ko war a nga xam li tax nga dajee lan la yaa ngi def musaaraat yaa ngi dajale ay borom xam-xam yaa ngi dajale ay oustaz yaa ngi wax ci turu diine ah il faut yow responsabilité boobu nga xam ni mu diisee parce que yàlla mi ngi wax ak yow ne la araayta ladi yukadibu bi diini yàlla mi ngi wax ak yow ne est ce que xam nga li ngay wax lan est-ce que xam nga message bi nga xam ne yaa ngi koy lancé kali di ci sukkandiku di yàqu ah moo tax information boo koy génnee danga nga war a xool lan la alquran wax parce que islam moo jàngale ne in jaakum faasiqun bi nabayin fa tabayanu su fekkee benn saay-saay ñëw na indi information na ngeen leerlu bala ngeen a jël benn décision ci information boobu na ngeen ko leerlu waaye léegi kum neex rek nga wax li la neex wax ku la neex lu la neex ah ñi ñi tënku ci loolu déedéet il faut bala nga appliquer nga science nga xool wax ji fan la tegu ulaayika taxaraw rachada ñi nga xam ne dañuy dañuy dañuy yër njub fu mu nekk wax ji ndax jub na wax ji ndax baax na du diw moo ko wax rek ah wax bu nekk dañ koy jàpp dañ koy réciter lu may benn wax mooy wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam sadiq al masduq kooku rek moom la ñu réciter waxam waaye ku ku dul kooku rek soo indee wax danañ ko jàmbat danañ ko xool ah moo tax bàyyi sa xel yow jullit bi bàyyi sa xel yow ki nga xam ne nite nga information bi ngay génnee parce que alquran jàngal na la ne la sa mbokku jullit même soo xamee ci moom lu ñaaw nëbbu ko mu ne la su fekkee lum def la mu ba léegi ne la nëbbu ko suturaal ko islam la man satara musliman satarawullah ku suturaal jullit yàlla suturaal la ah waaye yaa ngi wax ni sax toog ak sa beneen mbokk mais libre ko muy dégg. te mën naa moom bëggutu na waa ji dégg li muy wax bëggante ga ak nit mu yëngal ay message nga tasaare ko ah fex nga ba ndax nit ki invité nga ko ah yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne jikko yu ñaaw la yu suufe la yoo xam ne islaam ne la nga bàyyi ko tasaare ay awra nit wala yow ci sa bopp sax def ko yooyu yëpp ay jikko yu suufe la yoo xam ne loolu moo taxe ñëw islaam julli baax na or baax na waaye yonent bi ne na makaarimil axlaaq jikko yu rafet yi nekkoon ci jaayile yooyu laa ñëw pour avancer ko ku ma samarom duma amoo kersa taafu bil beyti araaya wa abadul asnaama wal ahjaara wal ashjaar di jaamulu du yàlla di wër ci kaaba gi te suluñ benn yére yooyu noonu la islam ñëw pour avancer ko lu tax yow nga ciy delluwaat yow ah lu tax ngay feeñal sa awra lu tax ngay génnee awra nit xanaa jàngoo li yonent salaay wax ne boo suturaalee nit ma suturaal ah am na loo xam ne dignité ak nité mayewu ko mayewu ko mooy lan mooy ne tere bu wax ne ne laa taskur ayba imrin wala aybu min ka qad yura bul wax heurali jàmbur parce que maman yi ngay wax heurali jàmbur ki di feeñ yow dafa am benn fam benn benn famille bu nekkoon Madina mu nawar trop nekk ay noble ñëpp xam leen ci lu baax mais ñuy waxal nit ñi nit ñi di leen di waxal mujj gi ñi gën a ees gën a ñaaw parce que ñi ngi waxal nit ñi nit ñi di leen waxal soo waxalee nit ñi semaine bii semaine bee ñëw ñu waxal moo tax boo dajee ci ci mbiri diine ah da nga war a xam bu baax li ngay wax parce que loi daf laa wax ne la alqaraar wala iqraar duñ benn liñ bind kayit biñ bind fii ne kum neex bokkal kum neex bàyyil boo ko teg këyit bi nga ñëw ne la force danga koy signé mu ne liñ tafale nag ne la kum neex signeel kum neex bul signé ah kooku ça ci yow tant que force wuñ la ne la lii danga koy signé far force mu ne bàyyi sa xel ci islam naka la la wax nga jëflanteeg nit ñi bul gis nit ci bekk daral bi rek nga ne jënd na xar ana maanu ah ana maanu bul gis nit ci bekk daral bi nga ne jënd na xar. yow wax ji ngay wax mënoo indi benn lu koy signifié ne mi ngi nii waaye wax ngir sa bànneexi bakkan wax ngir xoqatal ay nit wax ngir menacer wax ngir chantage wax ngir bëgg a bokk yooyu yëpp ay jikko yu suufe la wax ngir am dara wax ngir am wërsëg wax ngir am tur ah wax ngir yëkkatiku ah te luy jeex la bàyyi sa xel adduna luy jeex la adduna bi dafay jeex parce que arab bi wax na la ne waxal ñu xam la bàyyil xel ne ñi ngay waxat ay nit lañ boo waxee pare ci li ñuy xamee yow yaay kan ah mobilisation yomb na wax yomb na waaye nag jàppal boo paree rek gars yi classé nañ la kii li mu doon wax fii la jëm lii la doon wax parce que nit ñi am nañ xel moo tax addinu nasiha diine laayante biir la naka ngay respecté naka ngay wattoo naka ngay garanté li nga am sa patrimoine sa personnalité naka nga koy garanté mooy nga bàyyi nit ñi seen bopp parce que boo leen laalee rek ñu laal si affaire bu bu yàggee saagaante am yéen ñaar ñëpp seen bos ñagas moo tax jot nañu ñu tënku ci jàngale yonent bi sallallahu alayhi yi nga xam ne wax na ne bàyyi nañu loo xam ne buñ ci jàppee suñu àdduna dana baax suñ àllaaxira dana baax yonent bi sallallahu alayhi dem na ba nga xam ne wax na saxaaba yi ne leen kenn ci yéen bu roccee jaaseem bëggu koo jox moromam. na ko dugalaat ci mbarki gi ah nee nañ képp koo xam ne yaa ngi amee ngàndaay te utiliser wuñ la ah li ngay def xaraam na lu tax nga ne parce que ngàndaay boobu su fekkee ne garde wuñ ko duñ garde bakkan yi parce que dafay rey moo tax yunus bi jàngale bàyyiwu dara ni ngay naanee sax jàngal na la ko nee na képp koo xam ne ci yéen génnee na ngàndaayam wàcc na fasam te jaaseem bëgg koo jox moromam na ko dugalaat ci bar mi ah parce que danger bi ci nekk waaye génne rek sànni autorisé wuñ la waroo jaay waroo jënd waroo amee te fekk li waral nga mën a jaay waral nga war a jënd waral nga mën a amee nekkut ci yow soo ko defee rek def nga lu xaram parce que danger ci nga ne xale mën na koo gis ku xamul mën na koo gis ah yow ci boppam mën ngaa def erreur parce que xamoo li nga ame moo tax islam dafa tere. ku war ta amee ngàndaay amee ko ndax lan ndax wattu nit ñi wattu seen bakkan ak ñi am istiqraar am dal tey jii rek boo teewoon pistolet boo jubee nit ñi ñu ngi moytu parce que xamuñ xamuñ lay def ah moo tax lépp islam jàngale na ko gis nga loi yi ngeen di gis nii loi islam bi moo ko gën a complet moo ko gën a maanu moo ko gën a mat waaye nag est-ce ñun choisir nañ ko nañ bàyyi suñ xel ci yi nga xam ne dañ koy def te amul benn njëriñ yonent bi salaay salaam nee na sama xeet duñ dajee ci réer ummati laa yatimu wala ala dalala hadis boobu nag bàyyi ko xel bu baax a baax moo tax yow nit yi diine bi yow mi nga xam ne yaa ngi mboobu diine booy ootee nga xam ci li ngay oote lan la booy nga xam ci li ngay oote lan la ah islaam yi ngi noonu dañuy jàngal islaam yi ngi noonu di namm suñu xel islaam yi ngi noonu di ñu wax nañu kuntum xayra ummatin uxraj li naasi ban kaddu mo gën a gën moo gën boobu yéen yéen yéenay xeet bi nga xam ne ñoo gën ci xeet yoo xam ne ah mas nañ leen a wàccee wala mas nañ leen a génnee wala yàlla mas na leen a rek yàlla tànn na xeet yu nabi sallallahu alayhi wasallam def ko muy xeet bi gën ah xoolal ndax yow kaddu boobu nag da koy jël wala doo ko jël ah noo koy jëlee mooy nga xam yow yaay kan mooy nga xam garaat bi nga amee lan la mooy nga xam diine ji nga am lan la mooy nga xam yonent bi nga am lan la mooy nga xam ah soo toppee jàngale yonent yàlla moom salaay salaam fan la la jëmee fi mu la jamee lan mooy mi mi ngi la jëmee ci ci ci mucc mi ngi la jëmee ci civilisation mi ngi la jëlee mi ngi la jëmee ci xam mi ngi la jëmee ci dal mi ngi la jë jëmee ci kaaraange mi ngi la jëmee ci wërsëg wërsëg boo xam ne doo ci sonn yëngatu yu bëri nit ñi di ko def àdduna rek la wërsëg rek te yàlla war na ci wërsëg nee na ragalal yàlla te nga rafetal utin mi nee na àdduna bi yëpp luñ am am lu xam luñ mbëru lu luñ foor foor suñ dajee woon bëgg laa may loo xam ne yàlla mayu la ko mënuñ ko ñëpp suñ dajee woon bëgg laa tere bëgg laa xañ loo xam ne yàlla jël na décision pour jox la ko mënuñ ko xanaa xadis boobu war na laa doy yàlla wax ne qul illahuma malika al mulk tuuti mulka man tasha وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيتك القهر إنك على كل شيء قدير fa bi ay xadis ba'dahu yu'minuun nee na nguur lépp man maa ko joxe man yàlla teraanga lépp man yàlla maa ko joxe man yàlla waaye tamit ku ma bëgg a suufeel kenn mënu laa yëkkati kon yow yàlla ñu ngi nii ci sa néeg bi sa jaam yaa ngi hadana ala talabi darajati rafiati law al fadila amarna amran bada fi bi nafsihi wa sanna bil malaikati qudsihi وسلس بالمؤمنين من جنه وإنسه وقال تشريفا للنبي وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم mbokk jullit ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne képp koo xam ne kere nga sunna su baax lépp loo xam ne yoon la ci dana la ñeel ak képp ku ko def ba bés pénc waaye képp koo xam ne keree nga sunna boo xam ne sunna bu ñaaw la mooy jëf joo xam ne dañ koy roy itam ñaaw nee na ba léegi conséquences yi dana tege ci sa kaw dana tege tim ci képp koo xam ne def na ko bàkkaar boobu dana la war ba bés pénc sunna bu rafet ci Sénégal doomi Sénégal joxe ko tey adduna bi yëpp ñu ngi jàngal Quraan lu tax parce que koo xam ne doomi sénégalais la nga war a am ndokkale nga war a am kontante ci loolu mooy lan tey boo demee Madinatu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ñëpp ñi ngi jàngal Quran lu tax sëriñ bi nee na nawet a ngi ñëw lu tax adduna bi jaxasoo na waaye bëgg naa at bëgg naa at mu nekk ci heure bi lan la mu ne jàng leen téere yàlla bi dellu leen ci alquran ah dajale leen yéen taalibe yi ca Amérique ca Asie ca Europe ci Nigeria yëpp lim yaa ngi dem lu tax mu ne addiyal naa ko yonent bi lu tax mu ne maa ngi ñaan parce que aw jëdin yi xaqan li jabril kasri bëgg naa jëm dam damu damu waaye fan laay jaar jaarale naa ko ci alquran kon kaamin yooyu ñuy wàccee tey ngir Sénégal nawet baa ngi ñëw yow yàlla ñu ngi leen ñaan ndax jàmm kaamin yooyu ñuy wàccee ngir lan ngir yow yàlla am nañ ay jafe-jafe yoo xam ne xamuñ ko noonu yang ngi biir ah di lekkek ñun di naan ak ñun di dox suñuy réew di amee suñuy mbir tax xamuñ leen ah mënuñ ci ñoom dara waaye wa yamkuruuna wa yamkurullah wallahu xayrul makirin yow yàlla yaa ngi leen di gis yow yàlla yàlla ñu aaral yooyu nga xam ne ay fett la noonu ñi ñu koy jaxañ pour jam ko islam pour jam ko ci Palestine pour jam ko ci Qudus yow yàlla ñu ngi tawasul ci kaamin yooyu baytul maqdis yàlla boo ko gàccal yow yàlla ñu ngi lay ñaan ci barke kaamin yooyu nga xam ne adduna yëpp ñu ngi koy jàng yàlla nga delloo Qudus jullit ñi nga xam ne ah ñooy arab jullit ñi nga xam ne ñi ngi wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah ci sa kàttan ci sa doole yow yàlla ñu ngi lay ñaan ñi ngi tawassul ci kaamin yooyu ñuy wàccee suñu réew muy Sénégal yàlla na ko yëkkati yàlla nga yëkkati suñu économique Sénégal yàlla nga yëkkati suñu santé yàlla ñu ci may ndam may ñu tawfiq yow yàlla yàlla ñu dolli sécurité ci barke walaa yowudu xifzuhuma wa huwa aliyul azim yow yàlla ñu ngi lay ñaan yàlla ñu dolli xam-xam xam-xam boo xam ne daf ñuy ne daf ñuy def ñu nekk ay nit yow yàlla ñu ngi tawassul ci barke kaamin yooyu nga xam ne ñu ngi koy jàng yàlla nga wattu suñ gouvernement Sénégal yàlla nga matal bépp projet boo xam ne mi ngi ci réew mi di jëriñ ñooñu réew mi yàlla na ko matal suñu loxo am nga ko man nga ko yàlla na ko def allahumma arfa anna al jahda wal ju'a والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه خيرك واكشف عنا من بلاء كورونا واكشف عنا من بلاء كورونا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ليس لها من دون الله كاشفة اللهم احفظ بلدنا السنغال اللهم احفظ بلدنا السنغال اللهم احفظ بلدنا السنغال وانصر حكومتها ورئيسها وشعبها وأكمل المشاريع بأيدينا يا رب العالمين وأكمل لنا المشاريع بأيدينا يا رب العالمين وأكمل لنا المشاريع بأيدينا يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة